bonjour chers téléspectateurs jaajëfal nañ leen heure bu baax bi gannaaw journal bi di jaajëfal euh, Cheikh Diop ak rédaction bu télévision Futur Média moom mi ñu doon doon présenté journal bi ci kàllaamay Kocc ñun bu jeexalee ñun waa heure bu baax bi ñëw tey la mardi mairie day ñëw moo tax ñu koy souhaité bienvenue welcome namoon nañ la mairie ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. <laughs> maa la raw <laughs> maa la raw la la def waaw j'aime bien parce que ni ma la teeroon nii quoi. waaw j'aime bien j'aime bien tu vois ça fait plaisir euh, man damay bëgg ku may nam mag yooyu. Mhm. xam nga euh, tax moo tax ma wax la nii xam naa yi nga bëgg léegi. Ah, xam nga ko ah, ah. Mhm. ah kon bu boobaa dinañ mën a gën a déggoo loolu am benn problème donc di la jaajëfal sa noir dooree rafet na. Mhm. xam naa ne yow ba léegi yaa ngi ci raxasu Saint-Valentin bi. waaye moo tax laa la bëggoon laaj nag euh, di nuyu aussi suñu internautes yi di leen naan namoon laa ne lool lool lool lool ak suñu téléspectateurs yi nga xamante ne euh, léegi tàmm nañ ko 13h30 mu daal di jot rek euh, Cheikh bu daanalee wala Fatou rek moom mu daal di ñun ñu daal di ñëw euh, bégal leen mais aussi jox leen ay info et jàngal leen aussi ndax lu xew ci biir internet bi yéen a ko wax léegi nekkatul juste une émission digitale mais c'est aussi en même temps des cours qu'on vous offre gracieusement. waaw di leen di leen jaajëfal ñoom internautes yi di jaajëfal aussi ñuy ci émission bi mhm. surtout ñi nga xamante ni baaxoon nañu di intervenir seen xam-xam màcc ci wàllum euh, technologie de l'information et de la communication je pense à Mountaga mi eh, bokkoon ci émission bi démb ñoom euh, Cheikh Fall ñeneen ak ñeneen bari nañu ku lim juum muy jigéen ñi eh, góor ñi ñii ñi ñëpp nga xamante ne dañuy joxe seen xam-xam seen xalaat démb mm. Mountaga mi ngi doon wax ci mbirum euh, mail yi nga xamante dañ leen piraté woon 3 milliards de mail yi ñu piraté woon moom mu ñëwoon ci doon joxe ay conseils ci euh, internautes yeeg téléspectateurs yi naka la ñu mën def ba changer ay mail euh, ci parfois bu ñu tollee ci mot de passe pardon ci euh, bu ñu nekkee ci jafe-jafe wala situation yu ni mel. waaw démb jot naa leen seetaan parce que loolu man daf ma intéressé li nga xamante ne lépp mooy sécurité. Mhm. c'est et je pense que ñi ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi utiliser réseaux sociaux wala internet en général war ngeen bàyyi xel ci volet sécuritaire boobu volet sécurité boobu. Mhm. donc comme ni ko monsieur Mountaga waxee rek xanaa tous les six mois di jàpp di changer seen mot mhm. na nekk mot de passe bu robuste soo déggee mot de passe bu robuste maanaam bu am majuscule minuscule chiffre ak euh, yeneen lettre su ko defee mën a mu mën a loolu la ñuy wax mot de passe robuste comme ça kenn du ko voilà tuuti quoi am 100% jékki-jékki changer mot de passe bi euh, daal di def leneen parce que lu nekk mën na si xaj ci comme on l'a dit mhm. internet dara dara sécurité fa à loolu baax na am na solo waaye tamit du ma fàtte lu yëf yi neex neex lu mu am solo émission bi am solo dinaa la laaj sa saint internet yi wax ñoo laaj la sa Saint-Valentin ana monsieur jox nga ko cadeau yu bari man amul cadeau te Saint-Valentin pour ñu plan jarul kii mënoon nga ma réserver quand benn cadeau boo xamante ne pour man la te xam ne mën nga yeggalee ren ndawal fii comme yow euh, am nga jabar uh-huh. moo tax yow wutaluma la cadeau uh-huh. mais ex par exemple comme xam naa yoru dara <laughs> démb moom laa indil cadeau ah, da nga lancé pic jabar ne ko bi donc ci pour moom la non non dama ne yow moom moom moo war a jox cadeau dégg naa la <laughs> waxal ci keroog mais statut WhatsApp yi keroog neex na ci réseaux sociaux yi démb maa ngi ci doon wax waaw waaw waaw léegi non c'est jour Saint-Valentin bi nag non dafa neexoon parce que célibataire yi tooñ mi moom ku fi nekk célibataire fi ne leen ba ñu sonn <laughs> waaw ndaxte statut vue à sauf ah bari woon na bari na bari trop mais loolu nag dafa neexal vraiment affaire yi ndax gars yi fàtte li ma doon wax démb mhm. gars yi fàtte un peu li euh, actualité yi fi xew li xaw a stressé nit ñi tuuti. waaw reetaan nañu quand même. je pense que quand même cette cette année ci Saint-Valentin bi dafa wuyu turam. Mm-hmm. waaw parce que ci période couvre-feu lañ nekk. waaw doo génn vous êtes en mode cocooning vous êtes ensemble. yooyu di dund mbëggeel. yooyu moo la yooyu moo la gënal yow. Ah, waaw waaw waaw tax noonu nga ko dund yàlla nga ko yàgg dund lool. ak monsieur Diouf di ko jaajëfal di jaajëfal internet yi di jaajëfal yéen ñëpp ñi doon souhaité ñi doon fêté Saint-Valentin bi dama ciy waxaat tuuti rek te xam naa ne weesu na ci internet yi ngeen dimanche ak lundi mardi ba léegi semaine bi yëpp Ah. man ba semaine prochaine damay feete. non dama bëggoon wax ni xam ne internet ak information yi ni muy gaawee. waaw affaire yi day gaaw ñu passé jàll ci leneen. mais bii moom du baax man rek fi nekkoon di monologue di wax ci ci seen volonté bi ak yéen bien sûr. yow mii. Euh, moo tax tey ma ciy doon cukku nii rek ma may fàttali benn son bu Stromae tu te rappelles. waaw bi ñu na l'oiseau de Twitter. waaw l'amour c'est comme l'oiseau de Twitter. billaay nous et les réseaux sociaux c'est une longue histoire. d'amour xaaral réalisateur bi dafa connecté xaaral ma dugg YouTube. kan Poupoule envoyé ko ko. Poupoulaye tegal ko téléspectateur bien son woowu. dafay dafay dox ak fi euh, jamono toll. Mhm. Euh, ni ñuy fëlewanteeg. mbëggee mhm. love line. ah yow tamit love line. <laughs> réalisateur bi dafa dégg nag. waaw. moo ko laaj soo rek dugg ci te pourtant son bi ça date de depuis plus de cinq ans wala à peu près cinq ans quatre vingt millions de vues quatre vingt dix neuf millions. de vues non ça euh, avait fait fureur en son temps dafa defoon buzz. oui ci ça colle bien. dinañ mm-hmm. ñëwaat ak beneen son dinañ ko link réalisateur bi. Mm-hmm. beneen bu soprano bu collé bu baax sax ak. Mm-hmm. li ñuy dund nii ci jamono réseaux sociaux. Euh, Facebook ak Twitter ak Instagram fii àddina toll. loolu am na solo mais nag. mairie tamit waxal ci sa gars yi. Hmm? da nga am sa benn communauté. waaw sa question yi lay posé woon quand waaw sama jot dama leen ko laajaat rek bàyyi leen noonu ba nga ñëw ma joxe ñu joxe réponse. ah heureusement ma joxe réponse. non non bi ñu fiy dem. Mhm. bàyyi woon naa leen fi benn photo ma ne leen seul 1 pour de la population ñooy mën a xam photo boobu. quel est l'animal qui se cache derrière maanaam animal bi làqatu ci gannaaw photo boobu. y a y a y a eu de retours surtout. ci réseaux sociaux yi. réseaux sociaux yi wax naa ko mu nekk sa émission boo xamante ni dafa am avant la pendant après. et commentaire yi bari na ku nekk di joxe sa réponse te mhm. loolu am na solo euh, Abdoulaye mën nga jox réponse gars yi wane waat image bi gars yi fàttaliku tuuti donte fàtte xaju fi sax. waaw nii gis nga kon affaire da nga koy tourné. waaw da koy tourné boo bëggee xam animal bi. da koy tourné léegi gis nga boo ko tourné nii. lii de xaj bu yor ab yàq la. ma nga noonu. Ah. xaj bu yor son nonos mais photo boppam nag mi ngi boo ko xoolee nii en photo normale mhm. vieil homme la lay jox. Mhm. mais boo ko ëbbutiwee ça te donne un chien bu téye os. dafay wone rek ne les apparences sont parfois trompeuses. sa leçon comprendre waaw maanaam jàll na maanaam yow li ngay voilà li ngay gis ni mhm. du li nekk mais parfois l'apparence est vérité waaw mooy yenn saa yi mais la plupart du temps surtout par ces temps de réseaux sociaux là mhm. l'apparence est trompeuse nga dëgg nag <laughs> parfois yow sa photo yi <laughs> euh, man bi nga daan gis say photo photo yaa ngi ci réseaux sociaux ee eh, kay na dañuy xeex ñaari la ñuy wax fii léegi musuma changé. mais c'est vrai ah parfois l'apparence est trompeuse. la wax noonu dafa am solo mais c'est vrai. amuñu <laughs> ah non dama lay tooñ. mais parfois yéen nii nga daxee sax sa photo garaawul. waaw dañ ma koy wax nag damay bañ monsieur Diouf non dañ may photo. <laughs> mais c'est à l'image ñu ñu ñu ñuy posté seen ay photos. boo leen gisee en réalité. non am na photo am na aussi lieu bi nga nekk. Mhm. Euh, liggéeyukaay. yaa ngi may gaarawaale. maa ah. <laughs> ngi gaarawaale. moom xar bi nga bàyyi buum bi moo tax ma lay namoon yow <laughs> mais bu ci gaaruwaale kenn bu fi tooñ kenn kenn kenn bu eh, tooñ sax internet ndax li nga man gis naa koo xamante ne ah, moom nekkul Chine mhm. mais daf ko jaral mu jël snapam jël mot de passe ba jox ko xaritam bi nekk Chine ne ko snappal ma nga defal ma local. mais trafiquant de personnalité mais jamono toll nii loo trafiqué trafiqué am na moyen ñu vérifier joxe ay explications yu simple wane ni nekkoo fa nga nekk. lii nag jariñ mhm. eh, li ngay wax noonu dafa bari ñu koy mhm. Mhm. mais bon ak internet la ak réseaux sociaux apulaay wanaat leen gars yi gars yi bari je pense que trouvé nañ ko joxe nañ réponse bu baax. waaw am na ku naan xanaa ku trouvé day dem fi ngay wax sa salon beeg triangle de la loolu yëpp mën na cee moo tax mu wax ah. loolu. kan la si kenn la ci kii bu ma laaj benn tur. bàyyi kon après ma xool ko. kenn la ma yóbbul ko tabaragaa mais am na solo euh, ah. di wax ni internet yu bari dañ doon nag commenté ku ci nekk jox mais finalement donc chien la ak euh, vieil homme. waaw vieil euh, homme soo ko tourné photo normal vieil homme la maanaam paa ngay gis. Mhm. boo ko ëlbatiwee nga gis xaj bu yor bu yor kii. yax yax mm, voilà os nonos. ah mi ngi noonu jaax na. am na solo loolu nag tey moom dina ci am na beneen question bu war a ñëwaat bu pertinente surtout ci jamono toll. Mhm. mbirum réseaux sociaux ak euh, internet yeeg fii àddina toll Facebook Twitter wala Instagram d' ailleurs am na benn rapport bu génn boo xamante ni waa wii social ñu crédible d' ailleurs. Mhm. gis naa leen ci réseaux sociaux yi seen compte yëpp lañ ko badgé loolu bokk na ci ñi gën a vérifier xool ba xam na ñii wér nañu wala wérul mais joxe nañ seen rapport ci atum 2021 seize virgule quatre-vingt-dix-sept millions de sénégalais ñu ne Facebook trois de sénégalais ñoo nekk ci Facebook. waaw euh, oui à social wax nga ko benn agence la boo xamante ne nii dafa am plusieurs bureaux dans le monde. Mhm. donc ñoom dañuy liggéey en collaboration avec nit ñu bëri pour di def euh, ay rapports sur le digital donc comme ni nga ko waxee euh, seize virgule quatre vingt de sénégalais sur sur les seize virgule quatre vingt dix ñu nekk. Mhm. trois virgule deux millions ñoo nekk ci Facebook. Mhm. un millions nekk ci Instagram. 680 mhm. mille nekk LinkedIn. Mhm. et 184 mille 180 euh, 148 mille. Mhm. Euh, nekk euh, sur Twitter. Hmm, voilà 184 mille sur Twitter. donc voilà 148 mille. 148 mille donc coow li coow li muy bëri bëri Twitter bëriwul ni. donc mais Facebook moom. 3,2 mais ça reste quand même. ça reste mais sur 16,97 millions. millions ça va. a ans je pense derrière on avait deux millions de mhm. Facebookers mhm. loolu la ñuy wax ñu euh, nekk ay sénégalais mhm. euh, di wax ni réseaux sociaux yi donc dañoo réseaux sociaux yi donc pardon dañoo dañoo àddina fi mu nii. dañoo ŋànk àddina mais yow ban nga ci ëpp looy utiliser yow Facebook Instagram Twitter. Euh, man je suis temps yi je suis beaucoup plus euh, kii nu mu tuddati. Instagram Instagram temps je suis beaucoup plus Instagram. ndax fa la affaire bi nekk lan mooy secret bi. non en fait man damay jëlaat dama am période. Hmm. amoon na benn période YouTube rek laa doon def. ok euh, lii la ab euh, lim bu ñu xayma teg ko ci fii ñu toll ci population Sénégal. mais mhm. surtout sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk ci Facebook bref yu nekk ci réseaux sociaux yëpp. Mhm. muy Facebook ñoo ci ëpp la lu toll ak ñetti million ak xaaj. ci ay sénégalais ñu ngi ci Facebook lim bi toll cent quarante huit mille ñu nekk Twitter donc lu coow lu bari yëpp Twitter deseguñu yegguñu million. dañoo am doole nag. mais te pourtant dañu ndaw mais dañu am doole. mais sa mbaxloo bi yëpp ma nga Facebook. 3,2 ah, millions. Facebook waaw ah, fooy marché euh, central. yow fooy nga ne Instagram man je suis Twitter. waaw yow Twitter nga. waaw ah, yow it nag xam naa ci grand journaliste sportif ku la xamoon. <laughs> wala Twitter wala euh, wax naa la ko léegi man je passe plus Instagram. Euh, parce que damay scroller lu bëre. Mhm. Euh, mais man par contre am naa benn question boo xamante ne internet yi lan man man laa ko bëgg a poser. waaw léegi comme instant yi wax nañ leen chiffres yeeg yooyu man dama bëggoon xam tey ban réseau social. Mhm. ban réseau social ci diggante Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube. Mhm. yéen. ban face ban réseau social moo xamante ni mënoo leen toog une journée te duggoo leen ci. dëgg la waaw maanaam tey boo leen doon bàyyi réseaux sociaux ñu ne leen léegi dangeen di jël benn benn benn kese rek. Mhm. ban lay doon. waaw ah. waaw léegi nag répondez nous avec lu le hashtag Sununet jox leen seen ay réponses commentaires yi ngeen participer ci émission bi hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram actuellement nous sommes en live sur Facebook euh, Facebook bu télévision Futur Média commenter leen nous sommes en live seen ay mhm. commentaires dañ koy jël partagé équipe mhm. digitale bi di leen jaajëfal ñoom Maguette ñoom Aji euh, ñoom euh, Adja. Ah. Mhm. ñoom ñëpp ñu leen ci nga xamante ni ñoo ciy tax ba lépp jàppandi ngeen mën ñoo euh, suivre actuellement en live boo leen seen kër yi boo leen nekkee ci yi heure de pause maire yeeg yi nga xamante ni ñu ngi suivre émission bi bari nañu émission bi day jeex sax woo ma naan ma mais seen question bi joxe naa sama réponse mhm. lu tax doo leen ma tànn yóbbu ko ci diini dinañ ci ñëw tànn mag ñi nag vraiment nañ choisir parfois mag ñi mm. daal leen tànn loolu am na solo démb am na ku ku lu daw sama yaram ku ma dajal euh, ku def prison waaw uh-huh. dafa génn ne ma seen heure bi Euh, chaque jour fële ca prison bi mu nekkoon. Mhm. ñoom ñëpp dañ doon ñëw di ko seetaan ndaxte ñoom daf leen doon permettre ñu jàng lu bari ci réew. macha allah loolu baax na di ko jaajëfal di wax ni àddina. nii la parfois nga def erreur boo génnee euh, gën a progresser ñu bañ ci dellu di jaajëfal bu baax ñu nekk ci prison yi di leen ñaanal yàlla ñu génn ci jàmm te euh, bañ a def yàlla suturaal leen ba ñu bañ a defaat loo xam ne dañ fa yóbbu ñun ñëpp yàlla suturaal ñu di ñaanal ñu ne émission bi ñun ak yéen la euh, ñun ak yéen ñoo ko bokk parfois seen ay commentaires dañ ciy jot lépp di ko partagé te loolu am na solo bu ñu jógee ci loolu nag xanaa li ma la doon wax sànq réalisateur connecté. waaw lu collé ak réseaux sociaux comme que tey dañuy waxtaanee Facebook yeeg yooyu dugg ci biir ak chiffres yeeg yooyu. Mm-hmm. ah tey soprano bi laa xalaat. moo précieux bi. moo précieux voilà. ah waaw moo précieux. yaa la wax ni une heure de temps la am sur toute la journée te une heure sax ça dépend sa âge bi bu dee adolescent. loolu dinañ ci ñëw gën ko expliquer xam naa mère yi ñu ngi naan ñii <laughs> ñii xamoo leen sax téléphone ni mu leen def ku nekk ngi sa problème ak sa téléphone portable. ak fi jamono toll chaque jour dañ doon doon wax live yi ci am ak leneen yi ci am ak yooyu. tey mhm. dañoo euh, décidé ñuy waxtaan ak yéen ci réseaux sociaux suñu relation ak téléphone dafa nekk lu doy waar génération tête baissée. Mhm. koo gis rek léegi mi ngi nii. xale yi ku ci nekk sa lii. yëpp da ngay sëgg-sëgg ba dootoo. dañuy teel a màgget teel a am maux de colonne vertébrale. bari il faut ñu wax ak médecin yi ñuy wax seen problème bët yi d'abord. Mhm. ak euh, sëgg ba. Euh, ak stress. ak stress. mégalomanie narcissisme. narcissisme. <laughs> mais c'est ça. c'est la génération de des réseaux sociaux. ñu koy fotow di dugal. des pervers narcissiques ngay am léegi. ku nekk di fotow di dugal wane wu. jamono yi wane wu la jamono <laughs> genre Chérif Dia. Abdoulaye leen euh, génération tête baissée pourtant lu yàgg la léegi da ngay gis génération yu bees yi gis nga. nii la. moom moom ci ndeysaan ci biiru yaayam la ko commencé. ah mais peut-être amul parce que seen yaay dañ leen ba bari yor téléphone. waaw ah, waaw loolu la tamit di xoolaale li seen xool ñu xoolaale. xale yi ngay gis bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu màggee du ñu màggee suñu juddoo ay ay 6 mois yooyu 8 8 mois nga gis leen ñu maîtriser téléphone fekk yàgg na relation bu yàgg teel nañ ko maîtriser ci biir bi ouais ah voilà euh, leen toujours ci question bi ma xool comment euh, réponse u internautes yi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram Euh, seen ay réponse wala seen ay commentaire ci question bi mairie posé Apulaay wanaat leen question bi ma xool mhm. commentaire internet yi ñu lim ci kenn quelque rek comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su ne mhm. euh, voilà question bu am solo la ban ci réseau social euh, voilà ban ci réseaux sociaux yi nga xamante ne bu ñu la seen waxoon nga tànn ci benn mhm. nga bàyyi yëpp moom rek ngay tànn donc ban ngay tànn yow ban ngay tànn gis naa ñu naan Facebook gis naa ñu naan am na ñu ne moom Facebook moom mënuñu ko bàyyi ñii ne Snap mënuñu ko bàyyi ñii ne WhatsApp ñoom moo leen gënal. yow ban moo la gënal yow man Facebook mën naa ko bàyyi ah. hmm, non yow mais yow xam naa yow Twitter lay nekk yow. Twitter vraiment Twitter mën ma ko bàyyi. Ah, parce que j'ai beaucoup de choses ak sama liggéey. ci yeneen ak yeneen ak yeneen voilà <laughs> yenn affaires yi nga yomb na nga vérifier yenn yi. Mhm. te loolu dafa nekk lu am solo moo tax léegi image yi ñi crédible bon ñi crédible entreprise. wala yenn yu mag yi ñu ngi ci Twitter te. xibaar yi doonte mënoo am 100 pour cent lu dëggu mais mën nga jàpp ne lii dëgg la ak facile à vérifiable quoi. man nag man moom xam naa ne bu ma doon tànn benn moom YouTube lay nekk. YouTube parce que man image dafa compter ci man. Ah. image may gis. di gëm ngay dugal ci plateforme yi. waaw ci YouTube bi. am na solo. di gis euh, question yi commentaire yi ñu koy xaar internautes yi di réagir en temps réel hashtag bi sunu net la wax leen ñu seen relation ak euh, réseaux ci euh, réseaux sociaux yi euh, réseau social bi nga xamante ni doo mënoo ko bàyyi da nga ko scotché wu ba mënoo ko bàyyi te loolu euh, mënul ñàkk muy Instagram muy Facebook muy mhm. Twitter xam naa Bijou Ndiaye yow Instagram mënoo ko bàyyi yow yëpp wala nga bàyyi <laughs> Bijou Ndiaye nee na yëpp moom mënul bàyyi dara dara dara dara donc fi jamono toll nii nii ah ku bàyyi ci réseau mais parce que dafa am ñu ci def business moo tax. waaw am na ñu ci def business xam naa boo leen ko nar a bàyyi loolu dina yéeme. non non non parce que loolu xarmat la xarmat bu duul sax. <laughs> mais sa genre gi foo nga leeral da ngay ni business ci réseau suñu genre da ngay maas noonu gi dangay maas num parce que man yaa ma instruire yaa ma won yoon gi waaw yaa ma won yoon gi. dinañ ci ñëwaat loolu. Ah, dinañ ñëw ci xamante ne ñu ngi góorgóorlu bu baax démb am na benn xale bu ma envoyé mail bu gudd gudd gudd. mail li ma doon wax waaw ne li ñu doon wax ci dafa am ay jeune yi nga xam ñi ngi ci internet bi te di ko utiliser de manière positive. Mhm. te ñu ngi ciy gagné seen life. Mhm. ñu góor ciy góorgóorlu ñu ngi ciy liggéey comme ku nekk bureau di liggéey. ñu am salaire normal. Mhm. waa ji jox ma exemple ne mat na 4 ans xaw ma 5 ans ko teg bët te chaque mois mu versé ko xaalisam. am na fii Sénégal loolu dëgg la kooku dëgg pire la wax. joxe nañ ci exemple youtubeurs yi. Mhm. joxe nañu influenceurs yi joxe nañu aussi euh, ñi nga xamante ne community manager yi internet ci lépp ci ngay mën a jaaree mën nga évaluer nit ki grâce à internet nga xool li muy liggéey ndax mi ngi respecté li muy liggéey résultat bi mu gaaw nga gis ko. Mhm. te loolu am na solo. Euh, on n'est plus à l'heure du il faut faire huit de temps. pour mhm. ñu ne yaa ngi ci benn pour matal say huit heures te doo def dara. Mhm. alors que kenn mën nañoo def benn deux heures de temps bu saf sàpp mais très très très productif. loolu am na solo li nga doon wax génération BC bu leen ko fàtte lu yëf yi neex neex bu leen fàtte ni génération BC ngi fi ba tey. Hmm? tête BC nii la ñuy def rek nii rek ñoom. teel a am problème mu ndig. Ah, euh, ah. colonne vertébrale. waaw tey nag liñ ci liñ ci indi ci réseaux sociaux yi bari na commentaire yi maa ngi xool <laughs> internet yaa ngi joxe seen xalaat surtout ci question bi nga posé mën nañu prolonger ba suba. ñu tontu ci euh, en attendant ñu euh, collecter quelques réponses yu ñu jàpp ni c'est pertinent ñu partagé ko surtout ci jamono ji jaajëfal maire yi ñuy suivre ak paa ci ngeen bokk kay. waaw ñoom tamit nañ ñu jox seen <laughs> réponse jox leen ñi xam ndax ñu ngi ci <laughs> ndaxte dañ lay envoyé audio 8 minutes bëgg nga déglu ko ci saa si. ñoom wat yow eh sama yaay léegi defatul appel normal bi. audio rek yow appel whatsapp la lay def. dégg nga loolu. appel whatsapp. mais maire yi seen yoon nekku ci dañ lay envoyé whatsapp bi ba pare lu ñu li ma ci gën a naxari chaque jour ñu leen di euh, conseiller. di leen wax ne du lépp lu ñu jot ci whatsapp dañ ko war a transférer. ba pare ça c'est de un de du lépp lu ñu jot ci whatsapp bi dégg ko wala ñu. gis ko ñu gëm ko surtout ci jamonoy Covid bi lu ñu jot rek ne ci <laughs> whatsapp bi laa ko gisee. wala ci face bi laa ko gisee. face loolu du suuf su de. <laughs> loolu du source de may waxaale sama yaay. ci face foo ko waxee mu naan la ci face bi laa ko. ci face bi abréviation ci face bi de bu ci rajo bi laa ko déggee. waaw wala ci télé bi laa ko déggee. Mhm. mais léegi mais dinaa la ci face bi ci whatsapp bi man ñi ma ko envoyé. whatsapp mais du lu la envoyé la. waaw voilà. ba pare da leen bëri na de kon dëgg la. non non du loolu <laughs> contraire sax bu la ko ñëpp envoyé sax gën a la am njort bu ñaaw def attention que ni euh, du dëgg donc ñuy xool bu baax li ñuy envoyé ci groupe yi di xool bu baax li ñuy envoyé li ñuy partagé ndaxte ndax wér na wala wérul. Mhm. surtout ñun saa su ne dañ ciy jóg ànd ceeg waa Africa Check démb ñëw nañ ci li ñu doon wax li ñu doon partagé naan mbirum euh, réseaux sociaux yi ak euh, WhatsApp yi dañ ko doon partagé benn audio boo xam ne dañ ne ci mbirum Covid bi. Mhm. Euh, benn boo boolee limon ak bicarbonate day faj Covid. loolu nag mhm. amul benn borom xam-xam bu ko fësal ñëwoon naa ci démb waxaat naa ko encore une fois. du dëgg amul beneen borom xam-xam mbirum Covid bi nañu déglu li waa ministère de la santé di digle mais surtout borom xam-xam yi nga xam ni du ñu jóg ci média yi di expliquer di joxe ay xibaar yu wér te mi ngi nii. Mhm. te ñëpp doon ko partager pour surtout mag ñi nga xamante ni dañuy jot ojo bu ne message bu ne daan dëgg la te pourtant du dëgg. Mhm. du dëgg du lépp loo leen jot ci audio yi euh, ci audio WhatsApp yi dëgg la du dëgg nañuy déglu bu baax ndax nit mën na toog këram naan la man la diw man la maa ngi tudd Mamadou Ndiaye nekk médecin hôpital Dalal Jàmm. bon mhm. amul lan loo ko mën a prouver donc ñu def ndànk ak audio yeeg whatsapp yi le meilleur pour la fin kii kan la wala lii lan la en attendant ñu bàyyi fi question bi ba suba mais wax ñu kii kan la bi démb na am na ku ma fi indiwoon waaw démb am na internautes yi dañu bari joxe nañ seen réponse mais balaa boobu am na image yu lii lan la lii lan la boo xamante nii internet yi ku ci bari ñu ci bari dañoo commenté après ci guddi gi laa doon liiraat commentaire yi ñëpp naan mais image bi daf ñuy fàttali suñu jamono école mooy cloche bi e yéen ay sonnerie ngeen xam <laughs> mag ñi daan jàng yi kolos la woon <laughs> yéen kii ling ling ling <laughs> ah, ling génnee récréation école yu njëkk yi ah amu woon sonnerie yéen ay dégg yi oh. bees yi xamuñu woon sonnerie xamuñu woon yi jaw na ñoom Tafa Dioum la ak Chérif Dia génération bu garaaw la waaw après lii je pense sifflet la après sifflet ñu doog a ñëw ci sonnerie yi mais ñu bari sifflet la woon ñun ñii génération sifflet mais ñii c'est beaucoup plus ancien quoi. ah oui ça c'est très gis nga commentaire euh, commentaire boobu internet bi tegal ñu ci cloche bi ñi ci jaar jaar yi bari na mag ñi xam naa ñu ngi naan oh jamono yi may jàng. bilaay jamono yi ñuy nekk école primaire cloche ñëw def rang. taxaw nag cloche école man la lii su ma fekkoon man la. Mhm. école genre élèves yu sopp yi. saa yu ma rombee naa ci dóor xeer. pour mu ne keleng. <laughs> di am lu ñu ci sànni. <laughs> saa yu ma rombee mu ne keleng <laughs> dinaa ci dóor xeer. xam naa nañ ma dàq. yow yow yaay nekk genre élèves yooyu di ko gaaw a yàq. chaque jour ma ne monsieur damay génne damay dem toilette romb rek pour dóor cloche bi. <laughs> non pour génne xale yi. <laughs> mais mi ngi noonu euh, internet yu bari nga commentaire nañ ci joxe seen ay réponses jaajëfal leen parfois mën na am ñu tànn ci kenn yóbbu ko ci jili moom mi sponsorisé kii kàlla bi wala lii lan la nekk sponsor officiel jili CSB nekk rond point cité kër góor gi di ko jaajëfal. ci wóolute gi am na euh, ay matériels yu bari yoo fa mën a am ay électroménager yi téléphone portable yi Samsung Fold bi am na S21 jili. nga nekk rond point cité kër góor gi góor gi tànn nañ fi kenn benn internet mu dem jëli loowam téléphone am lay doon numéro téléphone baa ngi noonu 33 822 47 00 am ngeen possibilité aussi am fa lépp loo leen soxla ci ay électroménager moom jili CSB nekk rond point cité kër góor gi kii kan la bi kan la alors kii kala bi nga fi bàyyi woon démb. Mhm. ñu bëri trouver nañ ko mu nekk euh, tata Elisabeth Diouf. Mhm. donc euh, nekkoon nekk sax laay wax la femme de abdu Abdou suñu mhm. suñu président président Abdou Diouf. donc moom nag elle était la première dame du Sénégal moom catholique la woon et ki nga xamante ne moo di cardinal <laughs> Thiandoum. moom moo daal di euh, célébrer le mariage entre Abdou Diouf ak kii di Elisabeth Diouf. moom nag c'était une ancienne secrétaire de la direction des œuvres catholiques. nekk koo xamante ne kenn dootu ko présenté. waaw ah. papam libanais la woon yaayam séeréer. papam libanais la woon donc métis libanais séeréer la. Ah. donc euh, une vraie sénégalaise. Mhm. active dans lépp li nga xamante ne mooy le champ social avec euh, euh, œuvre caritative yi ñu ko xamoon la xamaloon yi. Mhm. d'ailleurs am na ay dispensaires ak maternité yoo xamante ne yu bëri centres sociaux yoo xamante ne moom lañ ko tuddee ay centre Elisabeth Diouf. maternité Elisabeth Diouf voilà ak hôpital. Mhm. di euh, lancé wu encore si affaire yi avec la maison euh, Signar. Mhm. donc pour reprendre un petit peu li nga xamante ne la yaay ji doon def ak euh, spécialisé maison Signar boobu c'est spécialisé dans les arts de la table. maanaam ay couverts assiette ak yooyu. <coughs> jaajëf Elisabeth Diouf la man yaakaar naa ne internet duñ ko trouver mais bon gis naa ni gars yëpp. seen xel dem na fàttewu fàttewuñ ko yow dafa yomboon ah. ah yow it. ah dama yaakaar ne xale yi deux mille yeeg. ñu duñu duñu. première dame bu mel nii kenn nga fàtte yow ah. na solo indi ñu kii ba xam nañ lañ ko xàmmee seen ay commentaire ci day continuer ci hashtag bi sunu net la Facebook. Twitter wala Instagram kii bu yàlla waaw la. Ah, <laughs> moom yàlla nee waaw la moom. yàlla nee waaw la leen ñu ki mën euh, am ñu tànn ci kenn mu dem ci jiili ah. Mhm. hashtag bi sunu net la muy mhm. Facebook Twitter wala Instagram. wax mhm. leen ñu kan moo nekk ci photo bi wala bu yàlla nee waaw. waaw leen ñu defal leen ñu collage c'est permis ngeen boole ci hashtag sunu net muy. Facebook Twitter wala Instagram temps yi nag moom miin nañu lool YouTube bi fa la ñuy tànnee kenn yóbbu ko ci jili mu dem jëli lowum jili CSB nekk rond-point cité Kër Góor bi waaw waa Facebook ah. waaw waaw parce que léegi ñoom ñoo gën a bari. na xanaa 3 millions de nangam nangam millions yow eh waaw damay gën a insister gars yi di gën dem ci yeneen. Euh, réseaux sociaux yi tamit. Mm-hmm. muy euh, ay Twitter ak yooyu baax na ci mm-hmm. kii kan la. bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram jaajëfal leen jaajëfal téléspectateurs yeeg internet bi tàggatoo nag Merry. Ah, waaw waaw euh, tàggatoo bi moom. day tax waaw moo tax saa yoo neetee ba suba rek da nga naan incha allah ba suba àddina wóoru. <laughs> balaa li xew ci biir internet bi di jeex saison une yow yow dina fi xeex fii ñun ñu revue de presse ñu yow maa ngi tàggoo incha allah ba suba àddina wóorul Ndiaye bàyyi ma tàggoo waaw kay donc euh, di remercier suñu internet yi ak suñu gan gi nga xamante ne tey euh, moom moo ñu ñëw seet si biir émission bi xam naa ñàkkul ngeen dégg baat bi euh, donc <laughs> moom bay perturbé sax yoonam nekkul ci affaire di leen nuyu yéen wax à incha allah comme ni ko njaay waxee mhm. ci beneen rendez-vous li xew ci biir internet mais aussi di remercier parce que daf koy bañ ñu koy mu koy sagoo Youssou Sylla suñu monteur ah waaw waaw Youssou. yaa moom boobu mooy jàpp ci affaire yi ba lépp yem ci réactivité bi mais surtout uh, yab nañ ko trop di ko tooj ak yooyu jàmbaar la di ko gën a encouragé. moom Youssouf eh, ndaw la xale ndaw xale jamono la mu ngi noonu xale jamono mooy xale yu miin réseaux sociaux yi. Ah, digital bi quoi baax na kii réalisé aussi di ko jaajëfal jaajëfal ñoom madame Guissé ñi doon jàpp ci liggéey bi. di jaajëfal aussi ñu ñu doon suivre suñu ay confrères Ibrahima Balde jiite eh, journaliste yi affaire yi moom mm. Ibrahima Bal di ko jaajëfal Samba Diamanka nekk journaliste fële ca Soleil euh, Samba Diamanka chaque jour mu ñuy béggee bari na suñuy ay confrères aussi ñu ñuy suivre waaw euh, journaliste yu bari aujourd'hui c'est l'anniversaire de Souleymane Thiam Souleymane Thiam waaw Souleymane Thiam bi nekkoon Nouvel Horizon ah euh, moom moo moom moo fi nekkoon directeur u Thiof Magazine ah oui c'est donc souhaité ko joyeux anniversaire en même temps waaw loolu baax na loolu baax na di jaajëfal aussi ñoom grand sama grand bi waay grand ba Euh, ñoom grand bi jàpp ci liggéey bi. oh Babacar Tafa Babacar. waaw Babacar surtout. Tafa euh, Dioum ñoom Tafa Dioum beneen heure bu baax bi nag waa Wareef la euh, équipe Teta Eva Beck ñoom Ndoye Ba nag ñoom Mami Wareef di jaajëfal internet yeeg yi jox leen yére bi ma sol nii sénégalais la xale bu ndaw. Mhm. di góorgóorlu bu baax ayub. consommé local bi moom macha allah. waaw waaw moom mooy góorgóorlu bu baax gars yi ñu ngi consommé local di joxe. deal bu baax bi quoi pour gars yi di ko jël numéro téléphone 77 108 51 30 77 108 51 30 yu rafet yu mel nii lay defal am ngeen possibilité dem woo ko téléphone jël ay commandes yu ni mel ndax fi jamono toll moom. ah yow it fi jamono toll. mu ngi noonu moo tax dama naan la wóorul rek tàggatoo lu mu métti métti. tàggatoo naa ba pare man. yow la lay déglu neen incha allah neen incha allah wax naa ko sànq Ndiaye. jaajëfal leen ba suba incha allah.